jërë ngeen jëf euh, mbokk yi ñoo ngi leen di nuyu yéen ñi nga xam ne yéen a ngi déglu rajo réew mi FM 97.5 seen émission euh, pencum réew mi daal di dellu siwaat comme ni nga xam ne moom lañu ko baaxoo di ànd ak yéen samedi bu jot bu 15 heures jotee jàpp 16 heures maanaam ñetti waxtu jàpp ñeenti waxtu euh, ngeen di si ànd ak Abdou Khadre Seck Mamadou Diaw Diallo moo nekk ci wàllu technique bi mbokk yi nag tey ñu daal di invité Arona Touré Arona Touré nag bokk ci coalition jot na. waaye moom mu nekk expert en analyse de la pauvreté mu nekk spécialiste de stratégies politique ak lépp lu jëm ci wàllum programme emploi euh, expert la tamit ci lu jëm ci wàllum gestion de la performance publique consultant international la euh, moom moo jiite tamit euh, parti bi wala kuréel gi nga xam ne moom moo tudd Pencum Sénégal mu nekk membre comme ni ñu ko waxee sànq ci coalition na nekk fa ki jiite commission stratégie de la coalition jot na euh, moom la ñu invité tey ci émission pencum réew mi euh, Arona Touré am nañu mbégte bu baax a baax euh, ci wuy si bi nga xam ne wuy si nga ko invitation bi ñuy nuyu tamit ñi nga xamante ni ñooy suñu mbokk auditeurs yi ak suñu mbokk auditrices yi ak ñi nga xamante ni ñoo lay déglu ñëpp rawatina waa coalition jot na. salaamaaleykum wa rahmatullah sëriñ Abdou Khadre ñu ngi lay ziar bu baax a baax di la nuyu. di nuyu sa auditeurs yi nga xamante ni ñoom ñoo ñu déglu ak ñi nga xamante ni ñoo ñuy seetaan. Euh, di ñaan yàlla euh, émission bi liñ fi nar a wax yépp mu doon loo xamante ni nañ ko mën a taataan te muy jariñ waa réew mi am sa émission bi pencum réew mi maa ngi nuyu auditeur u pencum réew mi yépp képp ku ci nekk foo mënti nekk ci Sénégal wala nekk ci bitim réew maa ngi lay fekk ba fi nga toog di la nuyu di la di la sargal. Euh, jërëjëf Arona Touré ñu njëkkee ci li nga xamante ni bala ñuy wax actualité ci coalition na bi nga xamante ni euh, fi nga bokk tey coalition jot na euh, coalition la boo xamante ni tey mën nañoo wax ne euh, dafa juddu rek nekk coalition boo xamante ni tey ñu baree bari xam nañu ko coalition bi di law waaye ñu gis ne bi nga xamante ni tey Ousmane Sonko génn na ci coalition boobu Boubacar Camara moo tam génn ci coalition boobu am ñeneen ñoo xam ne génn nañ ci coalition jot na ginnaaw ñooñu nga xamante ni génn nañ Euh, gisu leen ni am na lu baree bari loo xam ne euh, nekkatul ci coalition bi est-ce que sax du tur bi kese jamono ji moom moo fi nekk ban taxaw seetlu wala lan nga ci tontu. Euh, jërëjëf Abdou Khadre ci question boobu déjà damay def tuuti damay dellu ginnaaw tuuti ci ginnaaw. pour que mu leer ci bopp auditeurs yi nga xamante ne ñoom ñoo ñu déglu yépp dañu dem ba euh, élection présidentielle yi jege deux mille février 2019 un mois avant euh, weer ci ci li ko jiitu euh, ñu taxawal benn coalition bu ñu tudde tuddee coalition ko président mu am ay doomu réew mi ñu ñu bari kaar macha allah ñoo xamante ni dañoo gisoon seen bopp. ci taxawaay bi nga xamante ni moom la candidat président Ousmane Sonko amoon ñu ñëw jàppale ko euh, ginnaaw loolu it am na ñoo xamante ni dañoo nekkoon ay candidat ñu mel ku mel ni Boubacar Camara bi nga tudd nii ku mel ni Yacine Fall ak ñeneen ak ñeneen euh, ñoo xamante ni dañoo nekkoon candidat ci élection yi ñoom ñu bàyyi euh, seen comme amuñu woon parenage ñu ñëw ànd ak le président Ousmane Sonko. ñu dem ci élection yi février 2019 yàlla dogal euh, ñu am résultat yu ñu am doon résultat yoo xamante ne nii xaw na sax euh, bett nit ñi ci dayu loolu dama koy def relation ak euh, coalition bi nga xamante ni da nga wax ne dafa judd rek am tur foofu la affaire bi jóge donc ñu ngi départ ci élection février 2019 ñu def ci score boo xamante ni 15 pour cent ak lu teg Euh, donc euh, mu doon euh, succès boo xamante ni ndam ndam lu rëy ci Sénégal ñu jóge ci loolu ñu ne nag léegi comme élection yi soreetul élection locale yi soreetul parce que ñu ngi ko fixé woon juin deux mille deux mille dix-neuf no après ñu reculer ko de yóbbu ko décembre premier décembre deux mille dix-neuf ñu ne comme élection yi soreetul te am na liggéey boo xamante ne tàmbali nañ ko di ko def te aussi gis nañ ne euh, coalition souvent Sénégal dañuy dañuy dem élection rek après ñu tas coalition bu ko defee li ñu jotoon a liggéey du am du am jeexital parce que du du yi rek euh, euh, nit ñi nañ xamante dinañ dinañ gën a miinante donc ñu ne ñu jël décision ne dañu taxawlaat beneen coalition bi ñu demee assemblée générale août 2019 ñu taxawal coalition boo xamante ni ñu ngi ko tuddee euh, coalition Jotna patriote pour l'alternance donc noonu lañu ko tuddee woon la coalition na donc doon coalition bu euh, am taxawaay. léegi la ko léegi waaw bu am taxawaay ci ci ci dëkk bi ci jamono boobu commencé di liggéey mais bi demee ba novembre 2019. Euh, bi président de la république dafay mam ak bi mu voilà ak bi mu nommé euh, Idrissa Seck. Euh, cons ah 2020 waaw 2020 waaw ah, donc waaw 2020 euh, donc c'est merci ci bi ñu dem ñu ñu ñu gis ne dafa am ay ay coow yu am ci biir parce que dañu jékki-jékki rek jot benn communiqué Pastef buy wax ne. Euh, ñoom daal dañuy génn parce que euh, seen xel dalatul. non mais avant Pastef Boubacar Camara. waaw Boubacar Camara moo njëkk a génn foofu laa jëm euh, seen xel dalatul ndax am na ñoo xam te ñu ngi ci biir coalition bi te dañu gisee ak président la république. waaw donc ñu ci lañu am information ci seen benn naatango journaliste bu ñu wax effectivement que ne Omar que Boubacar Camara dafa gis ak président la république. léegi loolu gën a dëgëral xëy na ñoom seen seen seen xel ñaar bi ñu amoon ba tax ñu génn bu booba bi ñu génnee noonu après Boubacar Camara aussi génn donc ñoom ñoo njëkk génn après Boubacar Camara génn donc am ñeneen aussi ñu génn ñu mën naa leen bañ a tudd euh, mais daal am na ñoo xam te ni dañoo dañoo génn dem ànd ak Ousmane Sonko ndax ñoom ci niñ gisee Ousmane Sonko lañ doon soutenir am na ci ñoo xam te dañoo génn pour mën a man moomaat seen bopp xool ban taxawaay la ñu am voilà mais foofu jàngat man bi ma fi bëggoon def li ma bëggoon mu leer ci bopp ñi ñëpp dañ ñëwoon sax ci coalition bi dootul dellu si ci loolu parce que lu ñu weesu la ba pare li ma bëggoon mu leer ci bopp nit ñi mooy ñun bi ñu taxawal usman bi ñu taxawal coalition bi li ci ëpp Ousmane Sonko moo taxawal donc ñun tey na suñu xel quand nga jiital nit nga dem ba ci biir nit kooku ci boppam rocceeku joxe nag ay argument mais bon ñu xamee ne noonu la affaire bi demee beneen affaire bi mooy ñun ci biir man en tout cas sama taxu seetlu bi ma amoon gis bi bi ma demee ba euh, bi ñu demee ba euh, juin 2020 seetlu woon naa ne Pastef nekk ñu trop à l'aise ci ci ci ko ci biir lu waral loolu ah ñoom ñoo ko mën a expliquer. yow loo jàpp ne moo ko waral ñoom daal li ñu wax moom nee nañ hmm. nekk coalition pour élection la ñoom lañ jàpp bu élection bi jeexee kenn ko ci nekk danga xëy na looloo tax. en tout lañ joxe comme argument. d'accord léegi euh, Arona. Euh, sànq da nga wax ne coalition bi li ëpp ëppoon si li tax ngeen taxawal ko pour Ousmane Sonko la. Euh, génn nañu kon Sonko président ndax Sonko président 2019 la woon léegi bi ñu génnee ci élection présidentielle 2019 ngeen taxawal coalition jot na nga ne yow li ci ëpp Ousmane Sonko la woon Ousmane Sonko dem na ba mu yàgg mu génn ci li nga xam ne mooy coalition bi. comme ni nga ko waxee dem na ba xelam dalatu ci euh, laaj naa la ba xam dayo bi coalition bi amoon ba fa Ousmane Sonkoy nekk ak Boubacar kamara ndax dayo boobu la coalition am ba léegi nii wala am na lu ci wàññeeku. Euh, dina am lu ci wàññeeku ndax bu fekkee ne euh, ñëpp xam na ne Pastef doon na euh, réalité doon na euh, loo xamante ni lu am la ci Sénégal ba ñëpp xam ko euh, bi ñu dem élection nag coalition lañ demee woon léegi nag ñaar ci naka seen si buñ ko doon lim tey ci nuñ toll ñoom xëy na ñoo koy gën a mën a wax. mais ñun li ñuy jàpp ñun mooy dafa am lu ñu gëm parce que Ousmane Sonko lañ jiital ndax bu fekkee ne da ngeen doon ay nit ñu ñu xaw a bari car allah ñëpp doon ay leader Euh, bu ngeen dee dem élection bu leen neexee ngeen am ay candidat yu bari bu leen neexee ngeen tànn kenn mooy seen candidat loolu moo nekkoon suñu choix Ousmane Sonko donc moo nekkoon suñu candidat ci élection yi mais bu weesoo loolu euh, bi ñu demee ba ci kanam ba ñoom ñu décider génn ñun dañu gis ne ñun li ñu tax di jóg muy man yor sama mouvement tudd pencum Sénégal am parti Teranga Sénégal am euh, PAC bi nga xam te ne le président Bruno Denville moo ko jiite PAC euh, am yeneen parti yu nekk ci biir man ni ku mel ni euh, Faxas ak ak Gaoussou Koma ñooñu dañoo amoon seen parti avant man man mi wax ak yow conseil municipal la depuis 2014 à Thiaroye-sur-Mer donc maa ngi ak sama maa ngi ci beneen mouvement laa demoon élection ci jamono boobu bi élection yi passé ci laa créé man sama mouvement bopp nekk ci di liggéey donc lu ñu tax a jóg ñun mooy ngëm-ngëm bu ñu am ci nu ñu war a mën a taxawee pour defar réew mi ngëm-ngëm ci ñi nga xamante ni ñoom ñoo war a ŋànk réew mi di ko doxal. ci ay jikko ak ay taxawaay bu ñu war a sàlloo pour ñu ñu naw leen ci loolu. d'accord léegi euh, sànq si sa biir wax mel na ni euh, yéen am ngeen lu leen naqari ci génn bi Ousmane sonk génn ndax da ngeen wax da nga wax ka ne. Euh, nit ki bu dee moom la ñu jël euh, jiital ko dem ba mu yàgg mu roccee ko dana nekk mbir moo xamante ni mbir moo leen di jaaxal la léegi euh, laaj bi mooy tey su élection ñëwoon wala yéen coalition bi pas-pas bi ngeen amoon ba wóolu Ousmane Sonko pour mu nekk ci bopp réewum Sénégal ndax yéen yemu leen woon rek ci 2019 yi ndax bi 2019 jàllee si ngeen taxawal coalition jot na ndax 2019 bi Sonko président la woon léegi pas-pas wala doy wala doy gi leen Ousmane Sonko doyoon ci élection présidentielle 2019 yi ba élection yi jàll ngeen dàbbali ko ànd ak moom ndax bo ba mu génnee ci coalition ba léegi nii est-ce que taxawaay bi ngeen amoon ci moom moom ngeen am ba léegi nii. Euh, li ñu mën a jàpp fi mu toll nii mooy que ñun ñu ngi ñu ngi liggéey suñu liggéey. Euh, te aussi respecté nañ képp koo xamante ne ni yaa ngi ci terrain politique bi di liggéey moo xam nga bokk ci pouvoir moo xam nga bokk ci opposition ñi nga xamante ni ñu ngi nekk ci opposition bi ñoo bokk mébét ñoo bokk gis-gis ñoo bokk xalaat ci euh, taxawaayu réew mi ci war koo mën a jubbanti war doxalin bi politique nag euh, politique la ñun ñu ngi ñu ngi suñ suñu yoon di liggéey lu ñu liggéey. te te te li ma bëggoon a leeral foofu mooy am na ñu génn mais am na ñu ñëw am na ñu bëree bëri aussi ñoo xamante ne ni actuellement ñu ngi taxaw pour pour ñëw ci biir coalition bi di rappeler que ci ginnaaw tuuti. am nañ benn euh, communiqué bu ñu defoon euh, pour seen seen collègue journalistes yi xamal leen ne euh, CRD bi nga xamante ne moom Lamine Dia ñoom Mamadou Lamine ñoo fa nekk Abdoul Mbaye ak Thierno Alassane Sall juge Dème ak ñooñu ñu nekk ci CRD bi waxtaan nañ pour xool ñun naka la ñuy mën a liggéey ensemble fi mu toll nii li ñu décidé fi ñu toll ci ci waxtaan mooy Euh, kenn ku ci nag muy liggéey ci côtéam pour ñu xool après naka ban ban taxawaay lañu war a mën a am. mais mais est-ce que mais ah. Pastef ñu ngi continuer liggéey parce que Pastef c'est un parti boo xamante ni ñoom euh, ils sont autonomes maanaam ñoo moom seen bopp ñoom ñoo xam ban taxawaay lañu am. élection jotagul surtout élection présidentielle ba ñun ñuy xam ci ban candidat euh, la ñuy la ñu la ñu la ñuy jël buñ ci tolloo ah dinañ waxtaan amuñu nag en ci kenn amu amuñu xarma yàlla ak kenn ñun dafa am taxawaay boo xamante ni moom la ñu am ñu ngi ci am ngëm-ngëm boo xamante ni moom la ñu am képp koo xamante ni xalaat nañ ni euh, war nañu mën a ànd liggéey pour que dëkk bi avancé réew mi avancé ñun pare nañ pour ànd ak liggéey mais day fekk ñu bokk jëmukaay bokk gis-gis bokk xalaat ba pare aussi ñun ñu waxtaan bu juba ci loolu donc amuñu cristallisation ci kii la wala kële la ñun ci suñu biir ñu ci nekk ñëpp kenn ku ci nekk mën nga doon président la république parce que loolu moo tax tax di yëngatu ci ci ci. waaw mais mais mais coalition jot na nag euh, tey euh, luñ man di wax mooy euh, fi dayo bi tolloon bi fi président Ousmane Sonko jógee ak Boubacar kamara mën nañoo wax ne. Ousmane Sonko ah mais doguma la Ousmane Sonko dem na élection législative ak PASTEF 2017 ànd ak coalition amuñu 1 pour cent. mais du moom moom loolu la la expliqué. même non même même même bu même bu dul Pastef bi. même bu dul Pastef bi non at même bu dul Pastef bi dama la bëgg a xamal rek ne la euh, yeneen possibilité am na parce que bu dee loolu mën na nekk. Mhm. koo xamante nii mu ngi déparé moins de pour cent am euh, ñu dem élection présidentielle mu am 15 pour cent kooku mënul du loolu bu mënee nekk leneen war na mën nekk donc amuñu amuñu fixation ci loolu. Mhm. voilà donc ñun. li ñu jàpp mooy ñu ngi suñ ñu ngi liggéey li ñu liggéey li ñu tax a jóg muy loo xamante ne moo ñu dajale ñun mooy Sénégal ak réew mi baax. d'accord jërëjëf euh, ñu lay jaajëfal Arona Touré euh, yow lañu invité tey ci émission pencum réew mi yow nga bokk ci jot na Euh, léegi ñu wax ci li nga xamante ni moom mooy euh, loi bi nga xam ne euh, voté nañ ko fan yi ci assemblée nationale mu commencé jur coow lu baree bari jëm ci wàllum état d'urgence ak état de siège yéen coalition jot na ndax communiqué ngeen ci. defuñ ci communiqué bu mais waxtaan nañ ci. ma waxtaan nañ ci waxtaan nañ ci comme ni ko ñëpp seetloo ñun xaw na tey suñu xel tuuti daal parce que. Euh, bu fekkee ni yombal gi pour luy tax euh, sénégalais yi nekk ci jàmm ñu teg ko ci yoon bañ a jalgati yoon def li nga xamante ne moom la yoon santaane bu dee loolu la euh, baax na lu baax la mais bu fekkee ne nag dañ cee am luñ ci laxas te loolu xëy na weer yi di ñëw wala at yi di ñëw moo ñu koy gën a leeral donc mais daal ñun suñu position mooy que bu ñuy laal constitution wala ñuy laal loi nañ ko def ci intérêt strict sénégalais yi donc euh, ñun daal loolu pour l'instant loolu moo ci suñ position euh, buñ ci tolloo xam naa dinañ ci gën a gën a daal incha allah. mais ñi jàpp ne président Macky Sall daf ko taxawal ngir xañ askan wi seen liberté yéen loolu du seen gisin. loolu laa wax léegi ne la. ñoom li ñu jox ci li ñu joxe ci lay ci loi bi mooy dañoo bëgg lu gën a yombal. Euh, ñu mën a doy ñu doy ñu parce que gis nañu euh, gis nañu euh, man personnellement peut-être que c'est c'est pas de position sax coalition man dama gis ne président bi li wolof naan li raam ci ñag bi la jëm man li ma gis acte yi ma gis mu koy posé depuis un temps ak sax langage am dama gis ne dafa commencé di jël yoon woo xamante ne nii. bu gënee dëgër baaxul ci Sénégalais yi. mooy. déjà loolu li nga wax noonu parce que ñun xamuñu moom li mu li mu exposé motif yi mu joxe mooy que par rapport ak catastrophe bu am ñu war a réagir rapidement te loolu euh, am na am am na amoon na déjà yeneen yeneen dispositif loi yoo xamante ni mooy yu ko yu ko yu ko yu ko yu ko yu ko joxoon donc lan moo tax mu war a xë mën a xëy di xalaat ne dafa war a am lu muy modifier ci loi bi pour man. di mën a agir sans jaar assemblée nationale ñu rappeler ni ci principe bi lépp loo xamante ni dañ koy def pour mu jëm ci peuple bi te mu mën a affecté seen dund ci ci ci ci nu nu xaw a metti wala nu nu xaw a jafe euh, constitution bi li wax mooy dañ ca war a laaj euh, xalaatu ñi nga xamante ne ñoo toog ci pencum ndaw réew mi te aussi dañ cee dañ ko war a def mu nekk aussi ci intérêt wu Sénégal yi dañu gis ci discours euh, discours à bi gis ngeen ko toogaay bi mu toog euh, kenn du fi def lii kenn du fi man lañ fal et cetera donc discours boo xamante ne ni vraiment euh, boo déggee li mu naan man man man man c'est vrai moom mooy président de la république xaw na xaw na bari trop. te te léeg wax ji dafa doon dëgër. ba nga xamante ni ku bëgg na dem parce que mën nañ fal donc lu ma neex laay def façon yooyu dañ ko dégg ci biir waxam yoo xamante ni vraiment. ah man bokk ah, dalul sama xel loolu daal. Ah, d'accord mais mais euh, Arona Touré euh, yéen tamit ci opposition bi est-ce que xawu leen a nooy ci benn côté euh, li nga xam ne moom lañ gis yéen président dafay teg ay mbir mais bu pensé communiqué yi ngeen di génn du amaat beneen taxawaay dañuy da ngay dem ba da ngay sentir que ne sax est-ce que très sincèrement. am na ñu benn opposition bu forte boo xam ne ma ngi Sénégal ndax yéen loi bi bu passé député yi nekk assemblée nationale taxawaay wala li ci opposition bi wane du loo xamante ni lu am solo la lu waral loolu. waaw ah, mooy li ma la wax rek mooy li ma la wax déjà parce que bon euh, opposition bi comme ni ñu ko gisee gis nañ ne depuis un certain temps noonu nga defee analyse bi xaw na am tuuti ay euh, gàllankoor yu ndaw yu ci am parce que dafa dafa tas. mu ngi sax jéem a recoller à chaque fois mais dafa xaw tas tuuti mais nag boo seetloo bu baax di nga gis ne euh, ñëpp ñu nekk ci opposition bi tey comprendre nañ ne euh, amuñu beneen pexe lu dul dajaloo parce que li wolof naan li raam ci nag ñag bi la jëm euh, loolu ñu ñëpp conscient nañ ci loi bi mooy li ma la ci wax donc coalition bi waxtaanagu ci pour fixer une position mais loolu nga wax noonu ci président bi ñun xam nañ ko bu baax li koy saafara aussi xam nañ ko mooy opposition bi mën a am taxawaay bu dëgër boo xamante ni euh, ni muy am habitude parce que man dama koy wax tout le temps dama leen di wax ne damay wax toujours ni ma waxtaanal leen président dafay am toujours avance ci ñun il faut que ñun aussi ñu jéem ut ay pexe ba nga xamante ni bii bala muy xalaat dara wala boog bu ñu cor fatee na sax fii la jëm ñun ñu ànd ñu xë njëkkante ko moom jiitu ko ci loolu ba nga xamante nii bu léeg-léeg mu bëgg laal dara sax mais xaw a xaw a tiit ne lii bu ma ko laalee mën naa créer lii wala mën naa jusqu'ici mais amul lu muy tiit ci euh, amagul amagul xëy na amagul xëy na parce que euh, tolloogul tolloo parce que nitu boo li li nga gis ci opposition mooy li nekk ci Sénégal ku mën a muñ la tànk mu ngi yegg mu ngi mu ngi ñu ngi koy mën a tolérer <laughs> tànk ñu ngi koy mën a tolérer mais am na foo xam te ne boo fa tolloo di nga xam ne sénégalais du ko ñàkk fayda du ko du ko nooy bopp Euh, du koo xamante ne aussi lu la neex def. Euh, yim yim def jusqu'ici li mu def jusqu'ici lu ci bari boo ko seetloo euh, à part parrainage bi yu ci bari dina jéem a fexe fexe fexe ba méngale ko ak yoon même bu dul yoon dina fexe fexe ba méngale ko ak yoon loolu bu amee. dafay xaw a jafe pour que nga am benn taxawaay boo xamante ni taxawaay bu bu. d'accord d'accord mais yéen opposition bi est-ce que du président Macky Sall dafa leen a dàq politique. wala dafa leen ëpp ay stratégie ndax li nga xam ne tey moom la ñu nemmeeku mooy coalition benn bokk yaakaar mooy coalition bi nga xamante ni tey mën nañoo wax ne ci histoire bokk na ci coalition bi gën a yàgg mais yéen non seulement Macky Sall parti politique yëpp ci Sénégal tas ma ko beneen bi coalition bu ngeen fi def mu fexe ba indi fa jeexi jaax fexe ba tas ko ndax seen coalition jot na bi Macky moo ko tas entre guillemets ndax li tax moo fa moo recevoir ku bokk ci coalition bi xel teey ba frustration am foofu laaj bi mooy est-ce que du président Macky Sall daf leen ëpp stratégie. non ëpp ëpp ñu stratégie c'est-à-dire que euh, am na am moom moo yor moyens réew mi mais dama lay am lu ma lay bàyyee loo xel tuuti pour xamal la ne opposition bi yaafu suñu tooguñu noonu élection présidentielle mu ngi ko gagné ak coalition boobu nga wax noonu ak 58 euh, pour cent à près. boo seetloo bu baax euh, PDS demul élection PDS demul élection muy jël Khalifa Sall tëj muy jël Karim Wade tëj instant boobu sax Karim génn na euh, mais euh, nekkul Sénégal donc 8 pour cent yooyu bu fekkonte ne PDS am na de dem na du du ko am parce que électorat PDS ëpp na ëpp na 8 pour cent donc pour xamal la ne xëy na ci biir opposition bi xaw ma nag lan mooy motiver position PDS parti la bu autonome comme ñëpp. Euh, ñoom euh, ci instant boobu seen intérêt xëy na dafa nekkoon ci euh, banque seen ay yoxo ci élection yi mais loolu laa lay wax c'est-à-dire que malgré tous les mois de l'État malgré li mu am yëpp dajale ko li mu ni mu financer armée bi avant élection yi ni mu financé la gendarmerie boo seetloo bu baax gendarmerie fi mu toll nii moom sax la gën a teg ci kaw que police par rapport à la sécurité publique loolu yëpp dafa am lu muy wundu loo xam te ne dama bëgg Sénégal yi bàyyi ci xel mu ngi yokk actuellement mu ngi renforcer le budget de l'armée de 64 milliards ci ci ci kii bi ñuy wax affaire sécurité publique sécurité publique yooyu ñoom sécurité extérieure la ñuy wax mais man daal vraiment tey na suma xel yooyu yëpp mu ngi fii mu doon yoo xamante ne ay éléments yu ñu war a bàyyi xel la càmbar ko seet ko seetantal ko mais li ma la bëgg a wax mooy malgré tout malgré le fait que mu am ay moyen malgré le fait que mu mu mu mu mu mu ne mu ne coalition 85 pour cent la mais euh, bi mu demee élection présidentielle 58 pour cent la am te demul Khalifa Sall ngi mu tëj Karim Wade la ngi mu exilé donc <laughs> lool la bu buñ ci tolloo dëgg dëgg dëgg mu ñor ñu ñun ñëpp ci opposition bi ñu mën a ñu mën a trouver un terrain d'entente te mu jar ko waaw ah, dina gis loo xamante ne nii malgré tout ces moyens là du communauté Euh, jërëjëf euh, Arona Touré mbokk yi moom ngeen di déglu moom mu bokk ci euh, coalition jot na moom la ñu invité tey ci émission pencum réew mi moom nag mu nekk ex mu nekk expert en analyse de la pauvreté spécialiste la de stratégie politique ak lépp lu jëm ci wàllum programme emploi xam naa ni danañ waxtaane lu jëm ci wàllum xëyum ndaw ñi ci Sénégal ak jafe-jafe yi nga xam ne moom la làmbool consultant international la tamit moo jiite tamit mooy njiitul pencum Sénégal léegi euh, Arona Touré sànq euh, li ma la wax noonu rek laay dellu siwaat ci euh, maanaam nooy gi nga xam ne ni tey ak taxawaay bu ñàkk solo bi nga xam ne ñu bari nemmeeku nañ ko ci opposition bi te gëm nañ ne am réew pour mu pour mu am démocratie bu dëgër il faut mu am opposition boo xam ne bu dëgër këcc lay doon am société civile boo xam ne bu taxaw lay doon am ay syndicats yoo xam ne tamit ñoom ñooy taxaw mais gis nañ ne loolu lépp dafa mel lu nërmeelu ci Sénégal yéen tey wàllum fichier électoral mën naa ne néewaana euh, at muñ ko du jàmbat jafe-jafe fichier électoral dafa sàcc élection yeeg daf ci def ay mbuxum ak ay yu demee noonu léegi fichier électoral bii euh, ministre de l'intérieur nee na wut nañu ay experts euh, benn cabinet boo xam ne moom mooy tànn ay experts yoo xam ne ñoom ñooy auditer fichier électoral bi yéen lan moo ciy seen xalaat. Euh, li ci suñu xalaat mooy que bi ñu jógee élection présidentielle février 2019 amoon na ay coow yu bari ci ñaar te ñaar yi moo gënoon indi taxawaay mooy gisoon nañ ne fichier bi am na ay problème te loolu firnde yi bari na firnde yi bokk na ci dem ci centre de vote yi xool gis ay xale yoo xamante ne wóor na la ñi amaguñu 18 ans di ñëw di di vote bokk na ci euh, ay électeurs yoo xamante ni dañu dañu wër ba sonn mën ñu gis seen seen ay carte bokk na ci koo xamante ni bii dafa am carte ci ginnaaw ñu bindal ko ci ne mënul voter voilà donc gis nañ ñu bëri bëri bëri bëri yoo xamante ne nii. ak ku dëkk Dakar ñu ne la ngay dem Thiès ñu ñoo xamante ne nii da ngay dëkk fii ñu ñu sànn la fu sore sore sori te te jour élection la donc ñëpp xam nañ ne problème mu déplacement day posé wu ak yeneen ak yeneen donc ñu ñu ñu ñu euh, gis nañ loolu yëpp donc opposition bi amoon na. Euh, am na sax benn moment boo ko fàttali ko bu baax ñu doon laam-laamee est-ce que amuñu ñaar wala ñett wala ñeenti fi surtout bi ñu tolloo ci affaire parrainage voilà loolu moo tax ñu ñu ñu opposition bi ñu jógee ci élection ñu ne euh, nañu xoolaat euh, nañu xoolaat fichier bi mais dañoo gis ne ci ginnaaw gis ne après ci la président Macky Sall profité ci loolu parce que man loolu laa wax toujours parce que man sama position personnelle du peut-être position coalition bi sama position personnelle mooy que man ni ma jàppe man mooy même bu fichier bi baaxul noonu la waroon demee élection 2019 loolu laa jàpp parce que instant boobu noonu boo xoolee boo analyser bu baax résultat di nga gis ne moom mooy gagné bu dul ville yu ndaw yi du du du dépasser 50 pour cent. ça veut dire que. mais defaraat gi ko defaraat dafa yokk. population yeneen gox yi waaw loolu la dafa yokk dafa yokk population yeneen gox yi mais aussi. Euh, population sax mën na fa nekk mais comme moom moo mooy réew mi jël na ay nit jot def leen ay directeurs générau ñi mu def leen ay ay ministres ñi mu def leen leen ak ñooñu dañoo dem en masse inscrit seen ay nit maa ngi fàttaliku benn cas rek laa joxe maa ngi fàttaliku ci élection yi bi ñu joxe résultat yi après tout juste après bi ñu joxee résultat yi ñi dëkk ñi féete côté Ranérou seen responsable politique yi fa féete ñu ngi ndam ñu ngi wax ne 66 cars lañ déplacé jëli fi ay nit pour yóbbu leen ba Ranérou pour ñu dem vote ci ñu dëkk Ranérou yépp ci ci ci ci ci ci Sénégal fexe nañ ba ñoom ñu ñu dem foofu noonu pour pour dem vote te loolu lu mel noonu da nga ko doon gis ci analyse yi nga xam te moom moom euh, Arona doguma la mais yéen xam nga li wax nii effectivement kenn mënu ko weddi boo xooloon par exemple tey fu mel nii rek dama la fu mel ni euh, Touba fi nga xamante ni ñun fi la ñu dëkk mm. te Macky Sall moom moom euh, à 99 pour cent xam na ne dafay perte fi nga xamante ni mooy Touba te Touba électorat bi dafa rëy. mais yéen taxawaay bi ngeen waroon a taxaw pour vraiment nit ñi dem inscrire. opposition bi defuñu ko beneen bi pour nga nekk ci Macky la nga fexe ba say nit inscrire moo gënoon a yomb est-ce que du foofu la jafe-jafe bi commencé woon ci taxawaay bi ngeen waroon a amee pour nit ñu bindu. Abdou Khadre loolu nit ki bindu ci fichier bi c'est un droit. droit la boo xamante ne sénégalais bu nekk war na ko am cest à dafa dafa am loo xamante ni depuis code consensuel 1992 dañ ko waroon dépassé ci Sénégal waratuñu wax ay waxu fichier ñu ay jël moyen état bi parce que ñooñu ñëpp ngay wax noonu moyen état bi la ñu jël pour dem. surtout surtout non seetaanuñu leen. parce que non bu fekkee da ngay déplacé da ngay déplacé ay nit. ñu ne ñu waroon a voté fii nga nga fexe ba yóbbu leen feneen dem jël chef de village yi loolu depuis loolu du Macky Sall kese Macky Sall xëy na dafa daf ko gën a yokk Ablaye Wade déjà gisoon nañ loolu gisoon nañ ñeneen aussi ñoo xamante ne nii avant parce que toujours parti au pouvoir moom moo am mooy moo yor moo yor daanaka li permettre yëpp ñu mën a inscrire mais lu ñu bëgg ñun mooy légalité de des citoyens devant la loi citoyen boo xamante ni da nga toll ci voté war a voté surtout que léegi dañoo boole carte d'identité bi ak carte électeur bi donc yow war nga mën a dem inscrire maintenant bu bu bu élection jotee nga xool fi la doy nga nga dem voter foofu ñun dañu amoon yaakaar ci Macky Sall bi ñu koy fal 2012 ci euh, lépp lu jëm ci droit humain lu jëm ci ci ci démocratie lu jëm ci àq ak yelleefu doomu aadama ñu gën cee avancer loolu affaire inscription yooyu noonu Sénégal dafa ko war a dépasser Sénégal toll na foo xamante ne war na dépasser question yooyu noonu ñun loolu moo ci suñu gis-gis. d' accord jërëjëf euh, Arona euh, léegi ñu wax ci li nga xamante ni tey euh, moom mooy posture président Macky Sall tey sax xam ne benn journaliste benn journaliste analyse poli analyse politique bu ko wax mu ne posture Macky Sall bi posture la boo xamante ni daal maanaam mooy njiit loo xam ne. Euh, dafa bëgg a def euh, beneen mandat la maanaam ni muy waxee ak ni muy doxalee ne niruwul ne Macky Sall 2024 du bu bu jotee du joxe réew mi posture Macky Sall bi yow euh, lan moo ci sa xalaat. posture buur sax la yore fi mu toll nii ma fa ci la commencé c'est-à-dire li may tuddee dérive autocratique am la Macky Sall commencé Sénégal mu ngi utiliser bi wax nga ko léegi ci loi bi mu loi du euh, état d' urgence bi parce que déjà état d' boo xoolee doole yi ci nekk. doole ji chef de l' état am par rapport ak état d' ak ak ak état de siège ak ak ak couvre feu. di nga xam ne déjà pouvoir yu c' est des pouvoirs immenses. nga nga jëlaat yeneen yeneen yeneen droit ne da nga ko ci bë da nga ko ci bëgg a mhm. loolu déjà mu doon lu tooy xel. affaire troisième mandat bi li li moom li mu waxoon dafa leer dafa waxoon ne euh, euh, moom bi muy utaat deuxième mandat dafa waxoon ne ci premier mandat la nekk suñ ko falee suñ ko falee ba pare euh, bu dee laaj na dëkk bi nangu nañ ko fal parce que noonu la ko waxee woon su ngeen ma falaatee sama deuxième mandat lay nekk loolu waratul am discussion waratul am coow waratul am nii wii nii non ñu laaj ko benn moment ndax teg yi nii bu bu bu bu bu élection jotaatoon ndax da ngay da ngay samp sa ndënd wala déet mu ne man ma wax waaw man wax déet c'est-à-dire que loolu li mu li mu li mu fexe mooy kër fexe ba parce que xam na sénégalais Macky Sall ku xam sénégalais la ku xam psychologie sénégalais yi la fexe na ba instauré benn débat boo xamante ni dafa mel ni moom yoonam nekku ci mais débat baa ngi dox yaa ngi dégg constitutionnaliste yi di ci wax yaa ngi dégg ñeneen ak yeneen loolu voilà journaliste yi ngi ciy wax an ki nga may wax ni analyste bii nii mu ngi ciy wax alors que waruloon doon waruloon doon débat parce que leer na moom ma ko waxal boppam lui-même qui a dit que nii bu ngeen ma falaatee lii mooy sama deuxième mandat et moom ci boppam rappelé na à plusieurs nul ne peut faire plus de deux mandats son constitutionnaliste bi nga xam te ne moo bind euh, constitution bi Euh, ak équipe bi mu àndaloon mais wax na ne nul ne peut fer plus de deux mandats donc loolu waruloon sax dis doon discussion ñu gis ne nag euh, li ma ko doon wax sànq wax naa ko ci biir wax ji defe naa ñaari yoon lii raam ci ñag bi la jëm donc mu war a laaj taxawaay nag ci ñëpp war doon taxawaay ci opposition bi doon taxawaay ci société civile bi nga doon wax sànq doon taxawaay ci sëriñ si doon taxawaay ci syndicat yi ci journal ci ñëpp débat boobu waruloon am d'accord mais il a réussi à imposer ce débat comme d'habitude d'ailleurs noonu lay def à chaque fois day mel nii laalul benn affaire wax ci benn benn baat nit ñi nekk ci di di di wax bu ko defee moom mu toog fële bu ko bu demee ba set ne affaire bi nooy na mën na man na jàll mu force jàll. man li ma jàpp man. Mhm. mooy xaw ma dina ko def wala du ko def waaye xel maa ngi ci. Euh, jërëjëf euh, Arona Touré xam nga euh, problème bi mooy comme ni nga expliqué nii sànq man jàpp naa ne yéen. opposition bi ak sénégalais yu baree bëri euh, Macky Sall taxaw 2019 avant élection yi wax ne bu ñu ma falaatee du def beneenu mandat loolu nit bu am xel dëgg dëgg dëgg ak nit bu responsable yoon deful ngay gëm kàddu yu Macky Sall yooyu ndax bien avant loolu dafa waxoon ne man su ngeen ma falee 2012 sama mandat 5 ans laa koy def ba mu fa jugee defu ko 5 ans. diggante de ba Macky Sall 2012 bi ñu ko falee ak 2019 li fi Macky Sall wax du ma fal sama rakk décret lépp mu dañ yéen est-ce que normal na ngeen di répété naan Macky Sall moo ne woon bii mooy deuxième ak dernier mandaam te yéen xam ngeen ne sax conseil constitutionnel Macky Sall man li ma gëm mooy nawloowu leen ndax bu leen nawloo woon 2012 lu ne wax na ko conseil constitutionnel bu Sénégal te conseil constitutionnel ab institution la. dem na bay wax ne ab Ablaye Wade dafa yëkkati xaalis jox leen yokk seen doole. dem ba di ko méngaleeg dañu leen a ger tey kon yéen ban taxawaay réellement ngeen bañ a war war taxaw ndax tamit damay dégg ngeen wax ne buñ demee ba yegg sa xañ na borom xam-xam yi wax ci. Mm-hmm. non du sax borom xam-xam yi wax ci opposition bi conscient nañ ci loolu conscient nañ bu baax a baax a baax ne li fi mag Sall wax mu dañ bari na. Euh, sama mandat su ngeen euh, de ma man maa man juróom-ñaari at ngeen ma fal mais man maa décidé wàññi ko dégg nañ ko fi du ma fal sama rakk ci décret du ma fal sama benn sama képp ku bokk sama njaboot gis nañu après mu fal rakkam ci décret gis nañ mu tant que maa ngi fi Aliou Sall du am décret peut-être mën naa am nomination man naa am euh, mën na mën nañ koo fal mais kenn du ko nommé ci décret ñu gis après mu def loolu ak ak son jeune frère euh, waxoon na ne euh, gouvernance sobre et vertueuse su ma ñëwee dinaa fexe fexe ba alalu réew mi ñu teg ko ci anam boo xamante ni bii day jariñ waa réew mi ñu gis ne am na ñoo ay dossiers 23 dossiers yu mu wax ne moom moom moo ci dëgg tànkam pour dossiers yi bañ a jóg. Euh, bu yàgguloo dégg nañ ko mooy dérive yi ma la doon wax léegi bu yàggul dégg nañ ko mu wax ne am na fi ñoo xamante ni ci réew mi euh, suñu defoon dara boo leen téye réew mi yëngu donc am na lu muy bàyyi xel ci wàllu yëngu aussi donc loolu aussi mu doon loo xamante ni lu leer la ñoo ni boo leen téye réew mi yëngu te ñun li ko wax mooy citoyen yi yëpp en tout cas ñoo yem devant la loi euh, bu nit defee loo xamante ni jar na téye ko te euh, procureur te moom ngi doon wax ci même ci même wax ji biñ ko waxee affaire Alioune Alioune Sall son frère euh, dafa wax ne euh, juge les juges sont sont sont indépendants amul benn procureur buy wax juge na ko defal lii wala di intervenir ci dossier wala di di juge d'instruction juge yi ils son libres et indépendants alors que bon xam nañ ne loolu ay ay du du du li Souleymane li ko wax du ñoom seen jëm bopp ñoom juge seen jëm bopp li ñuy wax du loolu li ñuy xeex wax nga ko léegi c'est-à-dire que conseil que pouvoir judiciaire mooy pouvoir bi ñu gën a ñàkkal fayda ci Sénégal ah. lu mu dee dee sax lu mu gàtt gàtt sax assemblée nationale ñu ngi ci def les formes parce que dañu fexe ba à chaque fois ñu majoritaire à l' assemblée nationale mm-hmm. di nga dëkk député boobu tamit daf naa la man député Macky Sall la ba tey sax mën nañ ko parce que ci biir parti politique la nekk en général bu joxee instruction dañ koy dañ koy respecté mais pouvoir judiciaire pouvoir la comme ni pouvoir exécutif mais est-ce que yow jàpp nga ne Macky Sall bu sampoon dëndam 2024 ndax jàpp nga ne sénégalais yi danañ ko si bàyyi. Ah, ah am na ko ko fi jéemoon daal am na koo xamante ni bii daal euh, jéemoon force troisième mandat. mais dem na réussir na ko. mais gis nañ gis nañ fi mu mujjee gis nañ fi mu mujjee euh, ah, donc. non euh, mais yéen Macky bu sampeen dëndam da ngeen di bàyyi ngeen dem ak moom élection. wala da ngeen taxaw ne ko candidature bi duñu ko nangu lu ngeen xalaat. non Macky Macky amatul amatul droit de de am beneen candidature ci Sénégal. bay dem élection. voilà en tout cas candidature bu successive cest dire bu topp bu toftaloo tey jii nii ci deuxième mandat bi nga xam ne moom laa am. amatul droit am. Ah, loolu loolu c'est clair. léegi est-ce que léegi léegi coalition jot na lan mooy seen position bu Macky Sall ne woon day nekk candidat. non ñun xeex ko par tous les moins yi ñu loi may ak aussi par le moyens politiques parce que am na loo xamante nii du loi moo la ko jox loolu c'est ce sont des moyens parce que ñun xam nañ xam nañ ni fi mu jëm mooy xel mi daal mu ngi ci est-ce que dina ci yeggal du ci yegg loolu mais ñun aussi on est très conscient que ne loolu euh, lu lu lu ñu war a jóg dès maintenant la te ñu ngi ciy waxtaan ñu ngi koy ñu ngi ciy waxtaan ak ay nit aussi ak suñu ñaata ngooy nekk ci opposition ak ñeneen ñi nga xamante ne sax nekkoon ci biir opposition bi ñu waxtaan ak ñoom pour xool naka la ñu naka la ñu yaatale ci wàllu woowu. Rewmi FM ngeen di déglu mbokk yi seen émission pencum réew mi mu am samedi bu jot bu ñetti waxtu jote jàpp ñeenti waxtu 15h 16h tey ñu dalal euh, Arona Touré euh, moom mu bokk ci euh, coalition na Euh, ba pare tamit mu jiite kuréel gi di pencum Sénégal muy euh, expert xelam màcc jëm ci wàllum euh, natt pauvreté ak wàllum emploi léegi Arona ñu wax tuuti ci politique doog a ñëw nga xaymaal ñu lu soxal wàllum jafe-jafe Sénégal am ci lu jëm ci wàllum koom ak wàllum ñàkkum xëyum ndaw ñi ak ñi nga xamante ni dañu am ay diplôme ba pare di di di chômer benn laaj bi rek mooy li nga xam ne mooy élection locale élection locale tey mën naa ne bu paasee Macky sàll kenn xamul kañ la kañ la ñuy organiser li nga xam ne moom mooy euh, moom mooy élection yi euh, élection local tey dàq gi ñu koy dàq boo xoolee presque li ñuy wax mooy li ñu xam daal mooy élection locale yi at mu jot wala chaque jour bu diwee dañu koy dàq loolu lan nga jàpp ne moom moo ko waral ak taxawaay bi Macky Sall am ci élection locale yi. Euh, euh, code consensuel 92 Abdou Diouf dafa woote woon waxtaan wu yaatu. ci la defee ci la jëlee yu bari comme euh, euh, possibilité pour képp koo xam ne da nga bëgg a samp sa ndënd nga sàmp maanaam ci jamono boobu moom fexewoon na ba euh, ñu avancer lu bare bare bare bare ci wàllu démocratie ci wàllu représentation nationale maanaam droit bi nga xamante ni bii parce que pouvoir bi citoyen ñoo ko moom il faut que ñu dellu à chaque fois ci principe boobu moom kenn waru la mën a jël par un décret comme moom ni mu ko defee ne nii ñoo leen di représenter ba période sànkam loolu exception la war a doon war a doon la règle pouvoir bi ça appartient au citoyens citoyens ñoo ko moom donc euh, te constitution bi dafa fixé pour élection bu nekk période bi nga xamante ne ci lañ ko ci lañ ko war a defee donc ñun dañu jàpp ne loolu du loo xamante nii war nañ cee mën a nekk di ci di ci waxtaan wala di ci def maintenant exceptionnellement comme cas bii nii nga xamante ni opposition bi ci boppam ñoo newoon seen xel tey na ci fichier nañ ko càmbaraat nañ ko seetaat nañ seetaat aussi processus électoral maanaam ni ñuy fale ci Sénégal loolu opposition moo ko demandé woon mais ci délai yi ñu ko demandé waroon na ma ci waroon na ma def loolu yëpp moom nag dafa sukkandiku ci loolu pour euh, daal vraiment fexe fexe ba ba mën a ba mën a yeexal yeexal élection yi. léegi yéen euh, euh, cabinet bi ñu wax ne moom mooy tànn experts yi audité fichier bi est-ce que yéen coalition euh, jot na yéen opposition bi xam nga aussi c'est trop facile que ne nga jekk-jekk rek ne cabinet bi moo may tànnal experts yi yow xamuloo yéen est-ce que gëstu ngeen cabinet bi ban cabinet la est-ce que gëstu ngeen experts yi yan expert la est-ce que tamit yéen da ngeen ci am benn. benn assistance wala dafa danañ am lenn lu ñu leen may loo xamante ni yéen di ngeen xam ni liggéey bii demee est-ce que loolu am na ci. li ñu ci am c'est par par voie de presse comme comme ñëpp euh, xam nañ ni benn cabinet bu tudd Era Consulting la ñoom waa ji ko jiite sénégalais la euh, def nañ appel d'offre euh, international am na ñu soumissionné am na ñoo xamante ni moom la ñu ñoom la ñu jël mais ñun li ñu amal solo li ñu ëppal solo vraiment. mooy nañu càmbar fichier bi euh, buñ koy càmbar dinañ am euh, opposition bi ils seront représentés euh, buñ ko càmbaree ba pare li nga xamante ni moo ci tukkee ñu mën ko appliquer pour que yenn yi bañatee am Sénégal même chose parce que am na lu président Macky Sall waxoon dafa waxoon ne ci cadre dialogue politique bi liñ ci décidé opposition bi d'accord ci ak pouvoir bi du ci changer dara donc ñun ñu ngi koy foofu lañ koy xaare ñu koy xaare mooy suñu càmbaree fichier bi ba pare parce que am na loo xam te responsabilité état la du responsabilité opposition euh, choisir ay nit pour ñu pour ñu euh, càmbar fichier ñun liñ ci mën mooy xool euh, jusqu'ici amaguñ ci loo xamante ni lu lu tey xel la luñ ci mën a am nañ nag ñuy wax dégg nañ seen yenn collègues journalistes yi ñuy wax dégg nañu waa PDS aussi di wax ne Euh, di di am yenn yoo xam te ay ay ay kàddu yu ñu yëkkati jëmale ko ci ci cabinet bi mais ñun lañu jàpp mooy def nañ appel d'offre au plan international euh, cabinet bi moo amoon responsabilité choisir experts yi choisir na leen ba pare léegi ñu ngi toog di xaar fi ñu leen di xaare daal mooy boo ñu demee ba nga xam te ne liggéey bi taxaw na ñu liggéey liggéey bi ni mu waree te bu boobaa opposition bi da ciy bokk ñu liggéey liggéey bi ñu nañ seet ndax liggéey bi jaar na yoon wala déet ñaar yépp buñ ci jógee aussi li ñu jël ci décision ñu ñun dinañu taxaw pour ñu appliquer ko nañ ko war a. Ah, man coalition jot na euh, man damaa njort ne yéen man naa am ngeen fekk ji Macky Sall man loolu laa ñaan njort. ah buñ ko bëggoon def kon def nañ ko bu yàgg parce que euh, ñi nekk ci coalition jot na euh, bi ñu nekk ci politique ak léegi yàgg na. man bi may def peut-être nekkumoon sax ci politique ci instant boobu maa woon ci wàllu développement Euh, di yëngatu Thiaroye-sur-Mer ak feneen ak yeneen yeneen gox-goxaan ci ci Sénégal euh, bu fekkonte ne loolu rek la te man fonctionnaire la aussi peut-être que dama nekk en disponibilité depuis trois ans moo tax euh, moo tax ma <coughs> ma nekk consul ma may def consultance actuellement mais donc amoon na yeneen moyens yoo xamante ne mën nañ fa jaar comme ni ni ni Idy ni ko defee ñaaw na trop mais am na ñoo xam ne c'est des some de valeur pare nañ pour liggéeyal Sénégal bu fekkonte ni loolu kese la kon dem nañ bu yàgg. mais mais moom am na sañ-sañ dem ànd ak Macky dañoo gëm ne euh, am na ay sénégalais yoo xam ne bu doon ñaar wala ñett sax ba tey gëm nañ ni euh, nit dafa war a dafa war a am ay valeur. léegi léegi xam nga tey man euh, man su ngeen demoon ci ci suba ci mag yi man du ma bett ndax li tax. mooy tey Idrissa Seck mi nga wax nii na dem bi mu dem dem bu ñaaw la tey Idi ñu baree baree bari ku leen waxoon tey euh, avant 2019 na leen Idi Macky mën na dem ci Macky Sall doo ko gëm maanaam yéen yéen way politique yi yéen homme politique yi ñenn si yéen maanaam ñoom la nit ñi mënul comprendre. Euh, Idi man bokkuma ci ñi gëmoon ne mënul fekk Macky Sall. man bokk man ci Idi man depuis 2004 bi muy taxaw di démissionner. Euh, de son poste de premier ministre ak yi xew après ba deux 2007 bi muy dem di fekk Ablaye Wade euh, yooyu yëpp fi lañu fekk man bokk moon ci ñi gëm ne bettoon bettoon nañu ci sensu jàpp ñu woon ne mu ngi néeg mu ngi waxtaan ak moom loolu man bokk naa ci ñi nga xamante ne nii euh, mais Idi man mosuma jàpp ne man pour pour def mën na def lii wala mën na def lii Idi mën na il peut tout faire parce que pouvoir rek moo ko intéressé ah ñun nag du pouvoir moo ñu ñun li ñu intéresse mooy développement Sénégal bu doon ñaar wala ñetti nit sax ci biir coalition bi ñun loolu lañ gëm. d'accord te ci loolu lañ léegi euh, Arona euh, yow euh, expert nga jëm lu sa xel màcc jëm ci wàllum programme d'emploi Sénégal jafe-jafe yi ñu am ci wàllum emploi lu yàgg la lan nga jàpp ne moo ko waral ak lan nga jàpp tamit ne mooy solution yi. li premier problème affaire u emploi mooy dëkk bi dafay am lu ñu tuddee budget. budget Sénégal mu ngi toll actuellement ci plus de 4500 milliards euh, dafa am aussi loolu loo xam te ne moom la ñu tuddee produit intérieur brut mooy maanaam ñi nga xam te ne ñuy liggéey ci biir dëkk bi liggéey li ñuy liggéey li muy jur li muy jur ci ci alal ak ci ci ci ci ci koom boo seetloo ñaar yooyu da ngay gis ne Sénégal am na ay moyens am na ay moyens mais euh, moyens yooyu dañ ko war a utiliser. pour lii lii lii lii defar taxawaayu dëkk bi lii lii développer dëkk bi mais boo jëlee lu mel ni tey jii nii euh, plus de 1000 milliards nga def ko ci ci ci ci terre terre bi toog ak période bi mu toog nii yépp mënul mënul mënul jóg nga nga nga jël xaalis yu to toll noonu di ko di ko dug di ko dugal ci lu mel noonu te tey boo ko dugaloon ci lu mel ni mbay par exemple wala nga dugal ko ci ci ci beneen domaine boo xamante ne nii foofu la nit ñi gën a nekk donc doon na jur beneen beneen euh, beneen xeetu koom-koom ci ci ci dëkk bi. loolu ah, yow kon da nga jàpp ne dafa am ay projets yoo xam ne amul njëriñ. daanaka mën nañ ko waxee noonu parce que am na xëy na sax am na njariñ mais njariñ li moo dul bari par par rapport ak ñun suñu contexte économique. tey bu fekkonte ne même quantité d'argent bi daf ko jël def ko ci raay à grand écartement yi écartement standard yi Ablaye Wade doon wax par exemple. mu war a dem Tamba mën a dem Saint-Louis mën a dem Touba jëm jëm jëm vers la zone nord di nga mën a déplacer nit ñi rapidement di nga mën a aussi déplacer marchandises yi parce que problème boobu dañ koy am donc dama lay xamal rek ne la choix de politique économique yi mooy première stratégie d'emploi parce que état bi moo am possibilité gis nga ko ci Covid bi bi mu taxawee ne dama soxla 1000 milliards dafa dafa il s'est débrouillé pour am 1000 milliards loolu bu ko jëloon tey ne dama bëgg a moderniser sama agriculture agriculture. ñetti weer la ñuy bay ci at mi weer ñu ngi ndàmmoo ay def nañ mille huit cent un million huit cent mille tonnes te defuñu dara parce que euh, baykat yi. am nañu ko contesté. mais mais dafa nekkul xam nga lu tax dafa am loo xamante ni wàllu wàllu euh, économie dafa am nu économie di fonctionner bu offre bare prix bi dafa war a wàcc. dama laaj waa COPEOL ñaata lañ jënd seen ils ont acheté le kilo à plus de 350 francs te état bi 250 la wax nga ne offre bi dafa bari mais bu offre bi baree dafa prix bi dafa war a wàcc nit ñi dañu war a am problème pour téye seen gerte xam nga nu ñuy def dañuy dem ci luma bi 250 lañu wax 200 francs wala 190 francs wala 180 loolu mooy logique économique mënuloo yow nga ne dafa am offre nga nga euh, baykat yi yokk prix bi plus que yow li nga li nga wax muy un deuxièmement mënuloo ne offre dafa am nga tëj frontière yi pourquoi nga tëj frontière pour que pour que ñu bañ a génn gerte gi. loolu naxaate waaw léegi yow bu fekkee ne man li mu mën a d' accord mooy d' accord naa sécuriser approvisionnement intérieur mettons léegi bu boobaa ma ne peut être mën na jël ko kotaaw 40 pour cent wala 30 pour cent ñu ñu permettre ñu bëgg ñu bëgg exporter ñu exporter ñu 70 pour cent yi mu yem ci réew mi defuñu loolu dañu tëj frontières yi ne duñu du ñu kenn du fi génn gerte gi chinois yi mu mujj gi. ñu jege frontière yi avec la Gambie foofu lañ doon jaarale gerte gi di ko yóbbu Gambie di ko di ko exporter en Chine donc nañu wax nañuy wax nit ñi li am nañuy wax nit ñi dëgg. def nañ ko fi avant bi ñuy programme Goana bi ak yenn kii bi fi Bokar Samba jee di wër ñu ne ko am na Sénégal am na def nañ 500000 tonnes de maïs Bokar Samba Dièye nee na man wër naa Sénégal yëpp mënuma am 50000 tonnes. ñii nii gouvernement bi fi nekk nii 2015 wala 2016 xamatuma ban at la mais jamono yi ci ginnaaw wax nañ fa ay 1 million 1000 1 million 1 million de tonnes 1 million 200 mille tonnes de la ne ci biir état dugg dugg ci biir àll bi 17 fan la fan la million 800 1 million parce que ñoom ñoo def les prévisions économiques. mënuñ ko def sur la base de fausse information donc nañu commencé d' abord par di wax li nga xam ne moom moo am yaa ngi ma waxu emploi. mënoo développer emploi ci mbayu ñetti weer wala ñeenti weer parce que du tax ka fa nekk mën a dund ni mu war a dundee xale ya fa nekk gis nga ne ci wàllu xale yi dem ci géej géej yooyu ñu ci ëpp mais waa àll bi la du waa ville yi de mais parce que simplement da ngay gis ne yow amoo perspective économique waroon nañ mën fexe ndox mi lu ndox mi bu tawee wàcc mais ci suuf lay nekk soriwul napp bi soriwul war nañu mën a fexe ba baykat bi jóge ci ci ci doon paysan doon agriculteur maanaam exploitation familiale boo xamante ni mën na ci yor njabootam xale yi exploitation familiale moom mooy former xale yi liggéey parce que loolu lañ noonu ñun loolu lañ xam depuis depuis l'antiquité jusqu'à présent loolu lañ mos di pratiquer maintenant boo ko jëmee jëlee ci wàllu moderne ba tey beneen aspect boo xamante ni ci wàllu emploi la ba tey mooy emploi local emploi boo bëggee mu développer ci am réew danga nga koy tas fépp doo ko ja yamale Dakar rek wala nga yamale ko euh, Touba rek wala nga yamale ko Tambacounda rek day war a tas fépp ni nga koy tasee fépp mooy tey Sénégal am na cinq cent cinquante 552 communes am 43 départements et cinq villes yaa ngi dégg l'histoire des villes cinq villes mais ñooñu kenn euh, boo xoolee compétence yi nga xamante ne moom la leen bi jox c'est des compétences sociales fa la yam éducation santé jeunesse planification aménagement territoire et cetera amu ci benn compétence économique bu am du agriculture du tourisme du dara alors que alors que tey bu ñu leen joxoon compétence rien que tey boo ne woon euh, parce que booy xool presque 90 pour cent collectivités locales yi ci àll bi lañ nekk leen joxoon tey compétence agriculture rek mën nga jël xaalisu collectivité bi di ci di di ko di ko di ko subventionné baykat yi ñu ngi wax subvention chaque année subvention lan moo tax état bi bëggul bàyyi subvention bi mu mu dem mu dem ci au niveau des collectivités locales mais parce que xam nañ ni levier politique la yooyu la ñu def dañu téy réew mi ci façon boo xamante ne bii. kenn du kenn du doo doo dem doo mus a mënal sa bopp. baykat bi fi mu toll nii dañ ko teg ci situation boo xamante ne toujours dafay soxla état bi. effectivement du politique boo xamante ne dañ ko def pour libere baykat bi. c'est la même chose ci sàmmkat bi c'est la képp ku nekk ci monde rural bi noonu lañ la def ndox booy jox. sa sa ay jur mais waroon na soxla ngay déplacer wu ay kilomètres de kilomètres lu état 12 mètres 13 mètres soriwul bu soree ba sori euh, ba man ak euh, forage yi dañ koy capter bu ñu leen organiser ñu war a mën a créer ay emploi ci àll bi léegi beneen affaire bi mooy boo ko jëlee boo ko jëlee ci euh, emploi bu ñu koy wax souvent boo waxee emploi rek nit ñi dañuy dem ci euh, dañuy dem ci institution état bi créé ANPEJ et cetera ak yooyu noonu DER ak yooyu noonu loolu boo dajaloon xaalis bi ñu leen di jox ñoom ñëpp nga rationaliser ko jël benn wala ñaari institution ñu liggéey loolu xale bu soxla formation ñu formel la def am au niveau de la direction de l'emploi am na lu ñu tuddee la convention état employeur pour la promotion de l'emploi des jeunes mooy état bi moom mooy téye xale surtout xale yi jàng moo la téye ci loxo booleel ak entreprise nga mën faa def stage wala nga dem fa apprentissage soo paree ñu ñu ñu xool naka la ñuy fexe ba yombalal yow sa embauche xale yi nga xamante ni dañoo nekk dans le domaine de l' lii xaalis ci réew mi te kenn dépensé ko ci banque yi ci assurance yi ci ci ci fonds boobu ñuy wax ci ANPEJ bi ñuy wax ci DER ak ci yeneen institution yoo yéen peut-être du ngeen du ngeen parce que institution yooyu yi nag ci formation ONFP 3FPT et ñooñu bu ñu rationalisé ni ñuy def xale bu bëgg emploi ci Sénégal mën nañ fexe ba nga am emploi. jërëjëf Arona Touré lan ngay tàggoo. li may tàggoo mooy kontaan lool ci euh, émission bi euh, di nuyu encore une fois sa sa auditeurs yi. Euh, bu fekkee ne am na lu jubul ci kàddu yi ñu jégal ñu ko léeg-léeg moom nga xaw a sant si sa tuuti donc <laughs> war a sànni tuuti xeer donc vraiment ñu ñu ngi lay gërëm bu baax di la di la sant ci ci ci émission bi di ñu di ñaanal ñëpp kàndalug jàmm jërëjëf. jërëjëf Arona Touré mbokk yi loolu moo nekkoon seen émission pencum réew mi ngeen di sant ak Abdou Khadre Seck Mamadou Diaw Diallo moo nekkoon ci wàllu technique bi Arona Touré moom nag euh, moom moo jiite pencum Sénégal mu nekk expert en analyse de la pauvreté spécialiste des stratégies politiques ak lu jëm ci wàllum programme d' emploi gestion de la performance publique consultant international bokk ci euh, kuréel gi wala coalition euh, jot na nekk fa nag njiitul commission stratégie de la coalition euh, mbokk yi ñu leen di sant bu baax di leen di gërëm Mamadou Diaw Diallo moo nekkoon ci wàllu technique bi ñu leen di jox dig daje samedi bi di ñëw.